di ko jottale nag kàddu yi ci turu sëñ Yuusu mi nga xamante ni mooy jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah Mbàkke cant gi mooy gu amul ab amul fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem sëñ Yuusu nag wax ne ñu ngi lay dolli ay cant ci tawfiix yi nga xamante ni yàgg nga ñu koo defal te jataay bii bokk ci mu wax ne nag ñëwoon na fi nga jox ko ndigal ngir ñu ànd ñun ñëpp Hizbut Tarqiyyah di lenn nee na loolee nag biñ fi jógee ba bisub tey yëg na ci ay tawféex ak ndimbal Serigne Touba ak gàttandoom ndax bokki taalibe yu baax yi nga xam ni ñoom nga ko booleel ñu ànd ak ñoom bi ñuy ñëwee dañ koo xamal ne ko ñun dey yaay suñu jëwriñ ndax Cheikh Mouhamadou Mountakha yow la joxoñ te fu ab joxoñam jëm foofu la suñu bët di xool kon nag jiital nañ la ci suñu kanam fas yéene ànd ak yow ni ñu ko sañu digalee moom itam mu wax ni waxoon na la ne la dinañu dem indi la ndam waaye nee na liggéey boobu de su doon fukk la bokki taalibe yu baax yi yombalal nañ ko ko ndax gis na ci ñoom ak bëgg sëñ Tuubaa akuk dëggu ak xol yu laab ak yitte ak pas-pas ak fas yéene teg seen bakkan ci ndigal lii nga joxe ñu xool nu muy mën a amee te seeretuñ ci dara lañ leen waxoon ne ku ci ne nu bërin bi tege ci sëñ Tuubaa gis nañu def nañ ko nee na boobaak léegi nag taxawuñu lépp luy firndeel ni ñu ngi ci bàyyiwuñ ko muy njàngum xaside yi di kuréel yi ña ngay daje ca daara isbu tarxiya ca daaru xuddoos ak ca daara isbu tarxiya ci yoonu beleel di daje ci daara isbu tarxiya ci Sacré Cœur ak di ci daara isbu tarxiya ci Mariste ba démb ci waxtu wii mbooleem soxna yi nga xam ni ñoo bokk ci isbu tarxiya te nekk ci ndakaaru waxtu wi ña nga ca daara ja daje ñoom itam ngir fas yéene xam ne ndigal li nga joxe ci lañu fas yéene wii kon nag nee na loolu ay tawféex la yoo xam ne Serigne Touba defal nañu ko mu di ko mu di ko mu di ko seere kàddu yooyu rek naa ko doon ubbilee jërëjëf Mbacke xanaa kay li ma ci dolli du bari ndax gàttandug Seexul Xaddim boo ko amee euh, bu yëg ne defaloo ko lu tax mu defal la lim la defal yow ak cant rek nga def te cant gi xool nañu ne sant sëriñ bi sax lott nañ ci kon lenn rek moo des mooy jël sunu lépp joyal ko ci liggéey Sëñ loolu nag Mbàkke ñu ngi lay sant bu wér ndax yomb yombalal nañu ni ko sëñ Lamine waxee waxaaleel na ma waxaaleel na sama mbokk nga xam ne ñoo ñoom léegi genn kàddu rek amuñu ñaari kàddu genn jublu it lañ am mooy loo joxoñ ndax yaa ngi suñu biir ni nga nekkee suñu biir kon yaa ñu jiite man nag bi ñu joxee ndigal li keroog bi ma fi jógee damaa waxoon ne la ah, noo ngi defar lu ñuy indi ndam waaye dara leeru mu ci woon ak bëgg akuk façon akuk dogu nag laa jóge daal di ne jaral na ma jiital gi nga xamante ne yaa ko tànnoon jiital ma su ma doxee gis ne bu ñu soppee mooy gën a gaaw àggoon na ci man foo xamante ne ngir sa ndiggal li am ma dikk wax la ne la nangam de yaakaar naa bu ñu ko defoon mooy gën a gaaw ndax man toppee moom laa gën a jàng moom laa gën a mokkal ci lii nga xamante ne aw sas la bu tege ci sama kaw waaye nag ñoom ñii ñëpp nag ma ñoom ñii ñëpp yombalal nañ ma liggéey bi ndax gis naa ci ñoom bis bu set ma yëg ci dolliku noo xamante ne dama ni ñii kon mbàkke foo leen làqoon ba xaw ma woon ne fii ak ñii ni ñu baaxee ak ñu mel foo leen làqoon jaaxal na ma ñi ma àndal tamit duwaay bu tarxiya kenn ci ñoom koo xam ne jafel na liggéey bi ci ñuy fekk si amul hmm. kon lépp benn baat la dafa am nag loo xamante ne dañ ma ko dimbalee ba bëgg koo laabiré képp koo xam ne noo bokk yaakaar sëñ Tuubaa dama daan dégg wax sëñ Abdou Lahad joo xamante ne mosuma koo mën a firi daan naa ko waxandoog dong yëpp waaye léegi mën naa koo firi sëñ dafay dafa daan wax ne benn murit bu bëgg di moroomam amul kenn ku ci ne sëriñ tubaa wan na la ci sa bopp wan la ci moom jëm jëm sa jëmmam moom Seexul Xadiim wan la ci sa sa borom loo xamante ne bëggoo di kenn loolu ba mu ko waxee man xaw ma lu muy firi ndax xeeb sama bopp ci wàllu Pastef waaye bi ma gisee ni nga jëlee dongo yi kenn ku ci ne la sëñ Tuubaa def ci moom bu muuru woon ba kenn gisatu ko ba nit ñi di gis leneen ci moom yow génnewaat nga loolee sëñ def ci moom réyal ko màggal ko àggale ko foo xamante ne kenn dootu gisati lu dul loolu. loolu nag kenn doon bu ne jox nga ko àq noo xamante ne te àq jooju dara la sëñ def ci moom. nun nag ñu war ci jàngee kenn ku ci ne na xam ne la tax Serigne Touba tànn sa morom boole la ci njaboot gi lu mu def ci yow la kon nañ xam ne lu am na loo xam ne Serigne Touba ko ci def. Serigne Touba lu mu xas def rek valeur la. lu rëy la lu gànjaru la loo xamante ne na ku ne xàmmee loolu ci sa morom ngir ànd bi mën a yomb. waaye booy xool ci sa morom loo xam ne da nga yaakaar ne ak matadi la lu ko ëpp mi ngi ci yow te suñu borom moo la suturaal ba kenn gis ko. kon loolu daal Mbàkke dama koo jàngee ci saw doxin ba nga xam ne fi ñu toll nii damaa bëgg ñun ñëpp nag nu xam ne ñetti ñetti taxawaay moo taxaw suñu kanam. ginnaaw liggéey rek a nekk suñu kanam mm-hmm. liggéey bi moom la ci jiitu mooy mm-hmm. ñoo ngi ci weeru tabaski mm-hmm. xasida bi ñu jàng buñ la ko nuyoo ah parce que moom laa fi ay yaamin maadudaat suñ la ko nuyoo xam nga ne matale la sëkk fan yi nga xamante ne màggal suñu borom ak jéggalu ko ak ak di ko takbiiral ak di ko di ko di ko sant loolu moom mooy li ci gën a di suñu borom gën a taabu kon suñu jotaay bi bu ñu ko nangulee na la ko fay yow lépp yaa ñu ko defal ñaareel bi itam bu buñ ci jógee incha allah ci bis yi nga xam ne moo nekk suñu kanam weeru xaram am na liggéey yu ñu daan ànd ak yow Mbàkke waxtaan nañ ceeg suñu bokk yi yëpp muy benn nga xam ne liggéeyu njaareem bi ak liggéeyu xisree na Muharram incha allah nañ ko fas yéene ànd ak yow eh. màggal gi nga xam ne moo taxaw suñu kanam nag tàmbali nañ ko xool ci anam yëpp li ciy firnde mooy tey jii dinaa la nuyoo xamal la ne la Hizbut Tarqiyyah gépp nuyoo nañ la tey jii juróomi téeméer xar xar yoo xam ne eh, xari màggal la ma nga fa yeewee soo ko soxlaa suba wala nga soxla ko waxtu wu la soob rek waaye xamal ne xari màggal la loolu kon tamit ñu ngi koy sante te it duñ ci yem ndax kenn ku ne loo am sëñ Tuubaa ko moom kenn moomu dara ñun xam nañ ne sëñ bi dañuy sagal rek waaye lépp moo ñu ko defal kon loolu tamit ci wàccaay yu la bokk la ca des mooy Cheikh Saliou Mbacké mu tedd ma daf ñu daan jàngal ne saa buy wootee màggal gi da ci daan tegaale gàmmu gi jàng njàng moom nag daa mokk kon tàmm dinañoo xool it gàmmu gi kon loolu lépp ñoo ngi koy ànd fas di ñaan nag suñu borom yàggal la fi defal la ak wér ndax tey jii euh, lu Seydina Omar defaloon ci jullit ñi rek defal nga ñu lu ko raw busra li ahli sama wa kullu yaxtaaru toog sa toogaay bii li tax sax ñu gën a bëgg dongo yi ñu xam ne bu ñu amoon fële bañ a agsi joxe gu ma loxo de mbàkke tey ji li ma gën a loon ñun ñi ñëpp sax ñu leb leb joxe loxo bi te ñaan suñu borom fayee ñu ko yaddullaha fawqa aydihim ñu jël li addiye yaa ngi nii lii li ñu nuyoo la si Moustapha téel ñu ko waaw kay dama dama doon sàkku rek euh, euh, lépp na moom tey jii moom aal di ma am mooy damaa gis ne euh, joxe loxo yeeg yëpp baax na waaye sëñ bi nañu nangul rek la mu nanguloon waa uday biir mooy yaddulaa fawqa aydihim inna lazina yu bàyyi xoon ak inna maa yu bàyyi xoon allah yaddulaa fawqa aydihim loolu nag nañu ko nangul nangul ko suñuy njaboot nangul ko suñuy doom nangul ko murit yëpp moom taxawaay boobu la taxaw tey jii kon loolu damay ñaan koo teg coono kenn ku ne bëgg a wax soxla yaral xafaaya bi ay na xal bi zahiratan kama yusahidu ma taxtal ak naat xam na li ñu ëmb xam na li ñu wax xam na li ñu waxul nanu ko defal jërëjëf ay yëpp billaahi bi nee na mbégum tayam mii tay de na mënatul am mu caméra nee na alhamdulilahi rabil alamin moom di nee na li mu ci gis daal mooy daa daa xam ne rek dara soppikuwul. ndax li ne ci xol yi moom nee na dara wàññikuwul ci. nee na dara soppikuwul kon. nee na li am nag moo di. seytaane dadul toqi du tàyyi. seytaane dadul toqi du tàyyi. nee na lii weesu ba ci jataay bii. dañ ci doon wane yaakaaram ju tas moom seytaane moom nee na moom rekk ci feeñ nee na noonu dong la demee nee na jërë ngeen jëf neen tawfeex rek la bëggal boppam. sëriñ bi moo am lu mu bëggal boppam. doxin bu mu bëggal boppam. moo am aw doxin wu mu bëggal boppam. jëme jëme ko ci boromam. jëme ko ci boromam. lu mu bëgg boromam defal ko. lu mu bëgg boromam defal ko. loolu mooy suñu tawfeex gii. loolu mooy suñu tawfeex gii. day day lenn ci yëm ñàkk boroom defal ko ko ci ñun ñii nee na taw feex am nee na yoon nekku ci suñu bopp ngeen gën a xam loolu nag bu baax ngeen gën a xam loolu nag bu baax nee na mel rek nii nu rek nii ko jubloo rek nii ko yéenee nii nu ko yéenee ak ni ngeen ngeen ko ak ni ngeen ni ngeen pësteefoo. ñii nu pësteefoo. ni ngeen jubloo. ñii nu jubloo. lépp lépp. day na gën a nekk xastu gën a nekk xastu wajhi llaahi. Hmm. loolu rek mooy loolu rek mooy li ci am solo. loolu moo ciy sunu warteef. ne ndax tawfeex ji am na ba noppi. waaye faw nu yëg li ñu am. foofu ñu yëg ko. duñ ci suñu xel. war ko yëg ci suñuy xol. duñ ko yëg ci suñuy jëmm. nee loolu mooy suñu doxin. fokk ngeen dox. nu dox. ci bu ngeen yëgee bu ak bu nu ci loolu moom mooy ñun loolu mooy tawfeex ji sëriñ bi bëggal boppam diggante ak boromam te lu mu bëgg boromam def lenn ci suñu ndoxin wi day lenn ci lu day lenn ci lu mu mënta ñàkk moo tax mu am suñu borom defal ko ko ni mu ko bëggee nañ yëg loolu jërëjëf neen am nañ lu rëy lu jafe lu xawta mën a am sax loolu la lu xawta mën a am ginnaaw am nañ ko nag yoon waa ngoog ne na mu nu ko waxee woon rek kenn ku ne ci ñun na bëtam rek tege ci sëriñ bi bu mu fi gis ci diggante bi leneen noonu dong la noonu lu diis la lu rëy la lu jafe la waaye yàlla suñu borom lu mu yombal mu yomb yombal ko kon yombal ko. moo tax ñu sóobu yoon wi ngeen moo tax ñu sóobu yoon wi ñu aw. di ko jéem a doxee nii ñu koy doxee. di ko jéem a doxee nii ñu koy doxee. neen waaye nag na jëm kanam rek. kanam rek kanam rek. <laughs> bu ci dara soppeeku. amul taxaw amul taxaw. amul geesoo waaye loolu lépp nag. waaye loolu lépp day dellu ci sago. faw ñu am sago. ndax. ñëpp ngeen ñëpp lañu àndal. gaa yàllaa ngi ci. gaa yi bi eh, sëgg lu nekk ngi ci ñu farloo ngi ci ñu sàgg na ngi ci lépp ngi ci biir te faw nu dox te gaa yi ne ngi mu ngi ci digg gaa yi digg digg digg digg digg ci digg kon faw ñu dox nañ xam bopp suñu bopp jërëjëf yàlla yombal mu yomb waaye ngeen doxinu yombul lu yàlla yombal mu yomb waaye doxinu yombul waaye nun nag lu nu wees rek nañ ko xeeb ci liñ jëm noonu rek la demee jërëjëf ma bu nu rek. nee li ñuy ñaan. borom. moom suñu borom. defal nu ca tawféexi sëriñ bi. defal nu ca tawféexi sëriñ bi. ba ñu gën a mën a rek sëriñ bi. jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf waaw kon nan xam suñu bopp rek te wéy rek nag noonu dong la demee jërëjëf jërëjëf jërëjëf waay waaw waaw nee na ñu kon fu waay ne na teewlu kuréel bi al yum nu wal yusru yomb googu mu wax borom rek ko nañ ñaane Aliou nu wala Yusuf sëriñ bi tànnal ñaanal ñun ñëpp ñu jóg dem soxla su waay indi woon na xam ne mi ngi ci biir lii mu wax dégg nga amul sikk nee na amul sikk amul sikk alhamdulilah rabbil alamin المالك المكرم المتهدي بعد سعيد بالقرآن من ندي نجا بما يديم خير صددي على سعيد بالقرآن من ندي نجا بما يديم خير صددي هذا سعيد بالقرآن من ندي نجا بما يديم خير صددي هذا سعيد بالقرآن من ندي نجا بما يديم خير صددي صلى الله عليه وسلم آمين آمين بقى amiin Mbàkke amiin Mbàkke amiin Mbàkke amiin amiin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 gën noo gàtt noo tawféexi sëriñ bi